Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass xalifa général Faydu Tijaniya moo gën a fës ci xët mu njëkk waxtaan wu yaatu la fa sang ba xëy def ak ñoom tribune yéenekaay bi tànki jàmm ya mu doxi woon ca Soudan ak ndam lu rëy la mu ci amee dimension Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass ci àdduna bi lépp moom sang bu tedd bi di Cheikh Mahi waxtaan na ci ak l'observateur àddunay jëmee ci tolluwaayu politique bi ci réew mi moom kilifa diine gi kilifa diine geneen gu àddu jëmee ci tolluwaayu réew mi mi ngi ko defee ci journal La Tribune mu di maam Cheikhno Birahim ci nekk ci ñoom li ko war moo di mu bi dalal ñëpp di la dégg ngay saaga ab président de la république loolee nit ku am personalité ci boppam sax du ko def ay institution cim réew ñëpp ko war a respecté borom daaru ne réew mi toll na foo xam ne soxlawul politique mbaa ay détail lépp la ñu war a tegee de côté jublu ci askan wi ak seeni tawat fatwa noone la anki dina kay xëy tuddee dogal bi gouverneur bu ndakaaru jël yéene kay bi nañu ab communiqué la def di ca xamal politique kat yi ne ba juróom-ñeenti fan ci weeru sulet kenn def ci dëkk bi ay yëngu-yëngu yu jëm ci propagande électorale dogal boobee nag anki dina wax ne ñi ci réseau ñu xëy yam ci xët mu njëkk direct news gis fa Lat Diop directeur général bu LONASE di responsable APR ca Géejawaay ca Géejawaay googee journal bi nee nañu fa la doon conférence de presse démb doon wax ak militants yeeg sympathisants yi ci li xewoon ci élection locale yi wax leen ñu bàyyi ko ci seen ginnaaw te jublu ci élection législative yi waajal ko journal bi nañu waaye moom Lat Diop na comme fu mu yend Ousmane Sonko du fa dégg jàmm moo taxit yàkk na ketemeeg musiba ak mbelengaan njiital parti Pastef li Lat Diop nee na Ousmane Sonko manipulateur la boo xam ne tous ba tous jeex defu ko ci réew mi amalul Sénégal benn njariñ

nekk yóbbu ko place de la nation le journal xëy dalal alaaji Mali Gàkko borom grand parti Gàkko mi ngi xam le ne budul woon ak yu sew yi nga xam ne ñi ci majorité bi ànd nañu ak conseil constitutionnel def ko kon duñu toll fi ñu toll tey nee na ñun waaye yeewi dañoo manqué générosité ak sérénité bi ñuy def suñu investiture yi Mali Gàkko dolli ci ne président Macky mu neex mu naqari ci yam dafiy jóge loolu moom du dañ tout sauf troisième bi fan la ko ab immunité parlementaire am féete ba tax ñu taxañ ko tëj ko ni ñu ko def vox populi moom li ko jaaxal nee nañu moo di jàpp nañu Cheikh Abdou Bara Dolly dugal ci kaso bi ndax nee nañu dafa jël ay kàddu yu rafetul teg ko ci kaw président Macky Sall ci jamono jooju yéenekaay bi ne nañu gis nañu ko moom Macky Sall muy neng-nengal ak a nabb nabbee ca Paris la France waa ji ñu naan Californie ba di ko may ab interview te wax ju ñaaw ju nekk ak saaga yu bon yu nekk moom Californie def na ko Macky Sall ak këram